voilà su kaa jërëjëf euh, ñu ngi invité euh, triple S ah. triple S waaw. waaw <laughs> ah, toogal benn place triple S ngay bii ji bii ji. <laughs> triple S mos fi ñëw. Ah, triple S. Ah, triple S seetal loolu rek triple S lu tax triple S sax yow nuyool ba pare di soog a jël triple S triple S aywa nuyool ba pare. yeah it's your boy triple S aka waxal from Alpha Music represent Kaolack Yoff. Kaolack Yoff. Kaolack and Yoff. Kaolack mais maa ngi basé wu Yoff. waaw tuuti nii. na <laughs> triple S. Uh-huh. may mu tuuti rek saa. waaw eh, may mu tuuti pareegu ma def. maa ngi siyaar sama sëriñ. waaw Baara Khalil Mbacke. Mhm. moom sëñ Khalil bu sëñ Fallou. bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha. Mhm. ñu koy siyaar bu baax di ko jox wàccu waayam di siyaar soxna May Galas waaw di siyaar waa studio Alpha Music Record du bëggee képp kuy jàppale Triple S. macha Triple S. Mhm. ngeen ñëw na fi. Triple S yow loo fi wutaat yow lan lan lan nga def. way laa xadu tot moo lay produire. wala lan ba tax nga ne fi lay lay. te am ñeneen ñu bari ñoo xam ni ñi ngi ci rang bi. yow nga ñëw ñëwaat noonu nu mu demee yow dafa am leneen loo génne wala la. fii sama kër la. non lu ko def sa kër. fii nii. waaw ah. sama kër la. lu ko def sa kër. si kanam ngay comprendre. si kanam laay comprendre. waaw. fii sama kër la de. non baax na topp kañ il faut ñu régler loolu parce que man dama xamul triple S euh, fu muy jaar quoi parce que doy na waat triple S. Ah. man de fàtte naa ko xamatuma lu mu way. Triple S man way bi dama am problème xaw ma looy way lan lay way c'est <laughs> eh, eh, eh, lan nga way quoi man wala yéen comprendre nga Omar yow dégg nga li way. comprendre kay la way je vous en ah, yow ah. yow kay comme ka xam nga yow laay laaj kañ léegi lu mu xam nga li mu comme day doo commencé. ah foofu dégguma parole yi. man de am na fu ma dégg léegi naan am na fu mu dégg am na fu mu naan ku nëbbin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw hmm. waaw. loolu wax na ko. lan nga way que comme que ñun dañu pour déglu pour dégg way bi. voilà léegi son bi tasaare fépp la tudd. Hmm. voilà dafa am benn projet bu war a ñëw. fépp laay tasaare. yow nga way mënuñoo comprendre nga naan tasaare fépp. waaw soo soo déglu woon son bi attentivement di nga. déglu naa ko attentivement di nga di dégg paroles lan nga way. li ma woy moom laa lay wax nii man euh, tasaare la tasaare fépp fépp laay tasaare du ma bàyyi fenn hmm. comprendre na ah. benn projet la buy waaj a ñëw après koor gi voilà bu tudd tasaare fépp waaw ñu si doon liggéey ak suñu manager aadama la dernière fois bi ma ah, fi lan ngay tasaare kañ laa bëgg xam laa lay wax fépp laay tasaare du bàyyi fenn waaw ah, noo koy tasaare fépp après ngay comprendre projet bi bu génnee di nga comprendre su boobaa Triple yow ci gént nga ne wala defe nga ni ci réalité nga ne yow xanaa doo xool xippiwoo ci gént nga ne wala ci naan. non ma ne xanaa xippiwoo wala xooloo musuñ gént. ñu ngi nii di xoole nelawuñ de. non non. nelawoo pour yow. non musuñ nelaw. waaw mais xam nga nag euh, man li ma gën a jaaxal ci kii mooy pareen saay euh, da ngay gis koo xam ni maanaam képp kuy kii rek da ngay fan sa bopp quoi mais yow ci ñun. Mhm. nga war a def repère xam ni lii. neexut nga gaaw effacé ko. dëgg la man kay xam naa defar beneen. parce que nan nga mënee way ba pare ñun ci taabal ji amul kenn ku ne xam na lii ñu way. kii naan jàpp naa ci nee nga xaw ma ndobi rey rey sa maam. yow foofu nga war waxee yow tribees nga ne wax dëgg yàlla lii neexut. da dama a pare rek. laaj la nga daal di kii rek. balaa ma doon xam ni ngand dëgg nga. nga ne merci saa jërëjëf. Mhm. maa ngi dem gëstu jiwaat <laughs> léegi nag yow nga osé taxaw ne tasaare fépp ngay def est-ce que yow kon yow tripes ñu nag yow est-ce que ñoo bokk monde ñun de bokkuñu ak yow. mën na nekk euh, mën nañ bañ a bokk monde. waaw mais tey jii nii su la neexee nga gis weer ne lii jant la. ku si mën dara non man su ko gisee wax damay wax ni weex. non non ñii gañ a fi non la plupart. Mhm. képp koo xam ne ñëw nga. wax dëgg fa yàlla way loo xamante ni bii wayu ndaanaan la. Mhm. fii lañ lay joxe kii ne la saay li nga def kii na. mais lii nga xam ne moom nga way ñun ñu fi nekk ñu am problème mu comprendre lii lan la. dëgg la est-ce que yow waroo gëstuwaat ci walla nga wax ñu dara ci texte bi sax nga wax ñu pour ñu jéem a comprendre wax ñu lan nga wax ci texte bi sax. da nga bëgg a xam lu nekk ci texte bi voilà waaw pour ma ko. ak peelaal la ko quoi. waaw loolu nga bëgg. voilà kon déggoo son bi. non déggu ma ko walaay bu ma ko déggoon wax léegi moo tax ma bëgg nga wax ma dégg. ok ren di ñëpp def ci kees soxlawu ma compte banque chèque yu bëri embouteillage du fi xew kenn du jàll échauffement mi ngi ñëw terroriser territoire bi sama loxo ñett es la sama tur bi def ko logo mësul métti ba ñu bàyyi allah accu jël ay risque même bu fekkee sànni tàccu mini ba mixtape son yu bees pëndal fépp na ngeen pare you understand don't speak first tape dooma sip am coming nangu fii rest in peace ñi ma faat jaale naa seeni mbook wuree dem na këng xaalis dëgg sama poche deret rek lañ ma laaj depuis ba may gone dégg aatu ren changé game bi yëpp an basa bassa bés bi taw ne tata fësal si sa kaka bégal adduna yi dëgg xanaa déggoo ah xanaa déggoo ba léegi ñëw réew mi pour rey pour pour tasaare fi. soirée bee la bàyyi. waaw moom kay moom day nelaw <laughs> da nelaw de. non xam na rek dafa ta dafa tàmmul génn guddi. bu tàmmul génn guddi. Eh, mm-hmm. vraiment nag yow da ñoo yem mais yow vraiment vraiment. mais dafa mel ne loolu bàkk sa bopp quoi. non. ne lan la fi wax pour lu loo xamante bi jëmut ci boppam moom. ah waaw. reen di ñëpp yow boo reen ku lay déglu. <laughs> non non si facette bi may waxee. man facette. ngay waxee facette ngay leeral kañ ñu bi mooy ci game bi yow maa lay expliquer mais mënoo mënoo mënoo sax comprendre. yow ñan nga bëgg a reen ñoom ngaa ka. képp ku fi nekk kay dama lay eh, eh, jéggi. Eh, waaw am nga ci droit wóolu nga sa bopp. Hmm. maa fi nekk keneen nekk fi. kan fi man maa mais da nga doon def parti boo naan maa fi ne da nga laa def. defu daal day a waaw dëgg la li ma def bëri na. nee na a def wax ñu. lan lan nga fi def. <laughs> li ma def bëri na. comme lan soo buggee xam lan ak lan laa def. da ngay dugg YouTube nga tapé triple S. nga suivre ma wala nga dugg sama page Instagram loolu xam kaay wax la kaay wax la non nga tey jii nii du ma toog du ma toog si plateau bi. waaw non dama lay expliquer rek xam nga ku def nu muy mel. Euh, xam nga tey. am na boo yoo xamante ne bii mosoo leen a gis. mais maanaam seen musique ñoo lay fekk si. dëgg la loolu mooy ku def. dëgg la nga xamante ni bii tey boo defee musique rap. boo xam ne rappeurs yi dong la yem maanaam ñi xam kese la yem. doxut moom laa lay wax bu boobaa doxut. maanaam pour mu percer day génn territoire rappeurs yi. agressé teritoir mbala ma xam nga booy yooyu nekk mbuur xam nga li ñuy wax maanaam même ku rab intéressé wul mën nga dégg li ñuy def. dëgg la waaw mais foofu laay waxee foofu est-ce que yaa nga fa. maa ngi fa moom laa lay wax nii. nekkoo fa. non maa ngi fa. noo fa nekkee xam nga soxla ngay wax da ngay dem sama YouTube wala nga dem. sa Instagram parce que ñoom waxuñu kenn dem leen ci YouTube seeni ay paroles peut-être ak seen musique fu mu toll mooy tax nit ñi chaque jour. saa yi suñu génnee dara rek niveau bi ñuy àgg mooy tax nit ñi di di di ko xam. parce que voilà xam nga ñooñu. Euh, avant ñuy am loolu dafa am niveau bu ñu toll nii. dafa am fu ñu jaar. Ah. comprendre man maa ah, ngi si cirque boobu. léegi ko ba noppi non non ku mu ne la dama xam nga tey jii nii moom nee na xamuma xam nga ah, moom déjà xamuma. Mhm. yow xam nga tëboo tëb rek xam ak su ak lu birig il faut il faut il faut revoir ton ton communication. kon parce que du question de communication. parce que man su ma neexee taxaw ne man kenn daaxu ma lii kenn daaxu ma lii. mais léegi nii bi nga waxee nangu nga mais léegi bi ñu la waxee nangu nga loolu parce que da ne ñoom fi ñu toll yow àggagoo fa kon bul ñëw ne man dama man maa mën ñëpp maa toll fii maa toll parce que Salim la wax est-ce que axlu birig est-ce que euh, axlu birig dafa ñëw rek atteindre objectif bi Akhlou Brick kañ nga ko commencé. mais yow nangu woo loolu mais yow sa communication nangu woo loolu. di ngaaka. Ah, ah. di ay dib. ñoom ah, dañoo ñëw dóor benn affaire rek. léegi affaire bi éclaté booy bi mooy kan ko réussir. Mhm. dëgg la mais dama ne ko. dama ne ko moom mii nii bi mu bi mu bi commencé bi mu xamee Akhlou Brick yàggul. bi nga bi nga non. axlu birig axlu birig euh, seen premier son laa bëgg nga nga. non soxlawul instant bi soxlawul ma lay wax axlu birig seen premier son de. yow sa communication eh, non lépp loo communication eh, dëgg eh. yàlla sa communication. waaw dëgg la dafa wax moo tax moo ko loolu. xam nga lépp loo gis. non non du question de napp. bàyyi ko day nappe de. damay nappe waaw merci. aca wax ma première semence non non loolu indi ma fi. déet non yaa ñëw ci loolu. non loolu kii xamu ko léegi d' accord nañ. sama boobu moo fi indi man non je vous en prie. non yow léegi ma jigéen ma jigéen léegi d' accord nañ. 3S. Euh, 3S mm-hmm. la. triple S waaw triple S. mooy 3S rek. jarul ay kii ak ay kii ak. laaj triple S la bul yàq sama tur. tudduma 3S triple S la laa tudd. non mooy 3 mais triple mi ngi S espace S. voilà merci. mi ngi inspiré wu sax yooyu. la inspiré wu. léegi sax foofu nga inspiré ci affaire boobu. affaire boobu ñuy naan kii yooyu ñuy naan. bu tudd triple S boisson boobu may ma. <laughs> amagul ma ne waa léegi li ma lay wax. mais boisson bi moo la gën a siiw. Ah, bul ko fi tudd léegi. léegi déglu ma léegi kii waa léegi xam nga ñun. dañoo nekk ci plateau. léegi dafa am loo xam da nga ko wax sénégalais yi yitteel leen xam nga lu yitteel sénégalais yi ñun dañuy yitteel parce que da nga wax ak ma jigéen. Mm-hmm. nga ne ko première son ahlu birik lan la. mu nekk lu loo xamante ni bi tey bu ñu bàyyee noonu mu jàll rek sénégalais yi déglu dégguñu te yow nga yor réponse bi mhm. bu boobaa day doy waat parce que am na sénégalais boo xam ne peut-être mi bëgg na ko xam moo tax ma ne la léegi yow dañu bëgg nga wax ñu nga baaxee ñu baaxee ko réew mi mhm. première son ahlu brique ban la danga may cënc mayen <laughs> sam premier son mën naa la ko wax. mais du ma la wax premier son keneen oh, oh, man sam boobu oh, moo fi indi. kenn du c'est que c'est pour montrer sénégalais yi que ni. dafay napp mbëj ka c'est que xam nga booy technique la ñuy def. xamoo ko da nga koo xamut. waaw merci man sama boobu moo fi indi du ma parce que tey kay non non non non waa léegi lu tax nga ko kay laaj kon. alaaji sax alaaji moom moo ne ma fan si axlu brique. waaw léegi non non da nga may déglu première la kon yow da war a am réponse bi. waaw voilà amoo ko. boo ko amee waxal. nga alaaji li indi wax ji li indi wax ji sax mu mu nga baal ma alaaji li indi wax ji moom moo ne. moom moo mën ñëpp moo tax xama soo nee moom moo ñu mën ñëpp te kii ne la genre ñooñu noonu dañu ñëw première fois bi ñuy bi ñuy bi ñuy door rek dañu dañu attirer gars yi ñu ñëw si yow xam nga tey jii nii yow depuis yow ñëw nga fi bu yàgg te teewul ba léegi nii pour nga def percée su musique sax problème la def sax lu dara ci ñun dafay mel ni ñun ñuy jaar fii sax may ma tuuti euh, euh, doxul ah, doxul parce que laataan ngay ñëwaat da war a dox may ma tuuti kii dafa wax dafa dafa wax loo xam ne moom sax maîtriser wu ko muy lan comprendre na ah. moom tey ji nii axlu brique bi muy fëll axlu brique boobu mu wax ah. bi muy fëll kenn xamu leen hmm. you know what I'm Baye ahlu bi non non man tooñu ma kenn dañuy waxtaan non dañuy waxtaan moom moom moo jël affaire lan la dafa xamul lu muy tontu moo tax mu bëgg a fiyewu ci ahlu bi génnal foofu man non non man ma kenn si game bi waxuma waxu lijjantiwu ma kenn si game bi déglu s'il vous plaît s'il vous plaît bi ma lay wax loolu waxuma waxu ahlu bi waxuma waxu ngaaka waxuma dama ne la ni gars yi def ba kii wax la ko ne la dañoo fël rek percé mm-hmm. yow lan moo tax nga ñëw fi daaw nga ñëw fi ci plateau bi boobu ba tey mënuñoo gis dégg sa musique fenn foo xamante ne ni sore na te nga ñëw ne yow yaay yow yaay dikk bëgg a tasaare fépp merci beaucoup grande sœur voilà sa question bi neex na ma de mm-hmm. voilà maa ngi maa ngi profité waale di di jaale waale Adama Adama Gueye sama manager parce que depuis bi ñu defee émission bi. daaw c' était le 23 c' était le 23 août su ma juumul lundi. foog naa bi ñu fi jógee si jour boobu euh, la commencé feebar. ah voilà. si la sama manager maa ngi moom ñoo àndoon ba nga ko doon kaañoo sax. Mm-hmm. naan ko aadalaax. Ah, voilà yàlla na ko yàlla amin amin looloo tax ma stand by. def na deux ans presque dugg laalu ma daw ma studio defuma dara dama toog assister ko si feebar bi. parce que mënoo di ànd ak nit ki mu lay jàppale ci côté yëpp mu feebar nga nekk di continuer loolu mënuma ko man mën personnellement moo tax ma stand lépp mais su du loolu kon romb naa fii. comprendre nga bi loolu loolu bi nañ ah, sama yaay bu baax mère waaw ngi koy siyaar bu baax di ko wax mbébét bi mbébét bi doomam amoon ci moom si mm-hmm. kàttanu yàlla dinaa ko eggali ba mat sëkk waaw yàlla na yàlla guddal fanam bàyyi ko fi ba ci kanam euh, kii euh, triple mm-hmm. est xam nga ne danga am tuuti euh, kii ak nu mu tudd kii dëkk fii Grand Yoff kookan la dip danga mel ni loolu nga doon jël ci moom est xam nga loolu an man du ma déglu dip sax ah, déglu ko nag du ma non du ma ko déglu ndax lan du ma ko déglu dara. mais ga ga. pourtant da ngeen am tuuti kii da am. tuuti air parce que voilà damay damay damay nduróog dib. waaw waaw donc su ma ko su ma su ma koy déglu lu bëri. waaw mën naa gën voilà yow comprendre na. d'accord moo tax moo tax du ma ko déglu xanaa ma tombee si son bi. lu tax booy mbalaxmaan yi raw leen ah. Uh-huh. nga boo invité benn booy mbalaxmaan. ko ay concurrent lan uh-huh. mais boo nekkoon sax musique ko mu ne ma du ma déglu sama bopp. Uh-huh. maanaam day. wàccee boobu déglu ñeneen lay déglu pour jàng dara parce que la fait que yow. ngi déglu ñeneen ñi. yaa ngi jàng loo xam ne yow amoo ko si sa bopp. mais bu dee yow da nga suffisant sa bopp boo doo est-ce que xam nga doo progresser. dëgg la damay damay ñëwaat damay ñëwaat xam nga déjà ñu bëri man fu ma fu ma dem concert wala dara su ma téyee micro su ma commencé rap ñëppay daw ñëw foog ne dip dip moo nekk si seen. yaa ngi kon ñëw nga kon ñëw nga ci li ma la wax Cheikhul Khadim voilà kon xam nga dem est-ce que moo tax booy booy di la song ak yooyu non non non du loolu genre flow bi non dama am cas loolu si la flow bi maanaam flow bi moom duróo flow dip gaa yi bëri loolu lañ wax raison pour kell moo tax duma ko déglu man ma man man du question que ni dama ko bañ wala wala wala dama ko compte comprendre nduróo ngeen mais dafa déglu tuuti parce que dafa neex ay euh, affaire te dafa bari cas comme yow nee nga ko def ngir <laughs> euh, yàlla triple S xam rappeur rappeur sax modeste jigu ko mm. wallaay euh, li nga mel nii mm-hmm. loolu baax na ci rappeur aussi tamit mbalax maan mën na wax maa ngi déglu di parce que sa mbay mbayaan lañ man voilà mais bal rappeur boo taxawee ci seen doo faale ñii ñëpp parce que boo seetee son bi mu def <coughs> mooy wane ni jël na ñëpp dugal leen ci kàmb nappaaje leen loolu mooy loolu rap nag mu na ko quoi comme li nga xamante ni bi euh, moom la wax ni mais man li may wax mooy Omar yow ñëwagoo ci moom de ah? non laaj rek. xam ne mi ngi ci benn projet mooy projet bi nii. mais sànq daa am lu ma la laaj tontu woo ci maanaam jéego yi nga jot a def man lan nga jot a tegagum quoi bay sum beneen projet man loolu laa bëggoon xam. moom laa lay wax nii xam nga projet bii nii man nekk di lancé nii waroon na génn bu yàgg mm-hmm. mais sama feebaru manager moo kale lépp moo tax ñu teg lépp ci suuf. man Elfo euh, Music Record mi ngi nekkee Grand Yoff mm-hmm. si église maa ngi profité di nuyoowaale directeur artistique bi tutu di bëggee. tout euh, label bi yëpp quoi di leen shout up au passage. Mhm. ñu ngi def liggéey bu am solo depuis loolu tamit ñoom euh, bàyyiwuñ ñu ngi ciy jàpp. Mhm. bi ma reprendre studio deful sax deux semaines. Mhm. deful deux semaines. voilà te di la waxaat que ni. dëgg la ñun dañ si ñu ngi si game de dañuy rab de mais balax maa ni yóbbuwuluñ ñu dara. yóbbuwuluñ ñu dara. non yóbbuwuluñ ñu dara. parce defal naa aada benn hommage. defal naa aada benn hommage. loo ci waay wàcce <clears throat> laaw dina xëy bés dikkal ni noo laaw ñu yaakaar ni ñun rek ñoo fi ne yaakaar ni ñun rek ñoo fi ne su jëf ji baaxee bul ndamoo su ñaawee tuubi ko ne guddi na lëndëm dugg si na waaye leer ga dem yàlla ko wóolu mooy wóolu képp ku ko neex xajoon nga fii ba si kanam wéetal nga ma lool wër naa la fu nekk waaye gisuma la fenn wax ma fan nga ne ay weer a ngi ni teguma la bët sama waaja lañuy ñuy jooy te noppee guñu dem na ada ada dem na ada dem na ada dem na ada dem na ada dem na damay toog di fàttaliku benn bés bi ma woowee naan ma baaba sama dënn bi day metti loole yow yaa ma si doy buy weetoo wéet naa wéet naa man di wéet naa ada ada dem naa sama waaja lañuy ñuy jooy ada dem naa sa seex ji mu lay laajte sama yaay ji yow lay jooy ada dem naa ada dem naa guddee naa sama waaje sama waaje macha allah macha allah na ko borom bi yërëm amiin xare ko ca àjjana yu kawe may njabootam xolub muñ saraxam yàgg seen loxo macha allah waaw euh, kii yi mbalax maa ni yóbbu luñ ko dara xam soo waxee loolu te te yow sa premier couplet lañ koy waxoo ma si ñoom nga nga nga inspiré woo pour débuter sa wax kon donc amal nañ la njëriñ. parce que Pape Pape Cheikh ñoom ñoom ñoo génne way bi nga. ñooñu la ñuy def defuñ mbalax. musique la rek. non non aw ma si benn problème mun naa ko defi sax. mais ñoom dañuy def. mën na dem ba ba ba jamono changé ma def mbalax. mbalax man defuñu musique ah. ah? mbalax man defuñu musique quoi. non du musique waaw loolu moom ànd naa ci. waaye tuub nag noonu non. dañuy caaxaan. dafa am ay touche personnelle. waaw.

léegi euh, tàkk tool parce que waxtu wi jot. maa maa ngi leen di béggee yéen ñëpp. Mm, di leen jaajëfal ci invitation bi. voilà di char bu baax a baax monsieur Fall. Mm. moom tam mu ciy jàpp bu baax a baax. monsieur Fall men mu nekk fii Walf. Ah, monsieur Fall waaw. suñ grand bu baax la ah, wax dëgg yàlla. voilà moom mu ngi ñuy jàppale ci côté yëpp. Mm. ñu ngi koy jaajëfal. di jaajëfal staff triple S. ah Pape kii Pape euh, Djibril di bëggee staff bi yëpp liggéey bi mu ngi rafet. di bëggee sama waa ji. Ah, El Hadj Pëna saa kii xam nga kañ la invité woon kay tay kon du moom. non non ah, kon keneen la. waaw <laughs> <laughs> di jaajëfal Show Life Show Life production. oui. production moo def clip bi. moo def clip bi fayuma ko fayuma ko cent franc fayu ko ñaar fayuma ko dara si clip bi moom moo déplacé wu indi ah waaw man pâtissier laa ah, waaw man pâtissier laa dinaa la di su ma jógee fii dinaa jël sa numéro dinaa la yónnee sa <laughs> affaire yi di di shout di shout up waa Chopin ak waa Brioche Dorée voilà di bëggee gaa yëpp alaaji pëna maa ngi koy bëggee alaaji pëna ndeysaan bàyyil